situation bi euh, bi ci goudi la commencé biñ ma vers 20h, biñ ma vers 20h après ne euh, am nañu dugg ci mairie pour saccager alors euh, je l'ai presque vécu en direct parce que nous nga xamné ñoo à côté de la mairie ñom avons renseigné minute par minute ñom avons renseigné seconde par seconde ce qui fait que né dama don dégg les bruits de pierre dama don dégg les fracas à travers le téléphone bi nu jógee ci Auchan bi nag la ñu jógal ñëw ci mairie bi ñëw def fi ay dégâts dégâts yi nga xam ne moo fi am nag nañu wax ne li ñu sàcc yóbbu ko moo ëpp li ñu yàq parce que boo xoolee bunt yi ñu défoncé comme un ay effraction dajji nañu bunte yi et ensuite taj ay verre palanteeru verre yi loolu moom mooy dégâts bi nga xam ne mooy dégâts matériel mais li gën a am solo pour ñun mooy li nga xam ne dañ ko sàcc ñu yóbbu ko mairie bi deseetul benn chaise chaise yëpp yóbbu nañ ko buret yi nga xam ne sax moom la service assainissement doon kii ñu bàyyi woon ko ci cour bi yóbbu nañ ko même les pelles mairie bi également euh, yóbbu nañu sono matériel de sonorisation mairie bi également amatul desatul benn ordinateur en fait lépp loo xam ne daal man na mën na nekk na une valeur commerciale ñu mën ko génne mën ko jaay ji loolu yóbbu nañ ko noonu laa ko mën a résumé te donc résumé bi mooy liñ ñu yóbbul ci sàcc moo ëpp junni yoon li ñuy yàqal ci wàllu matériel. xanaa peut-être que damay rassurer population yi xam ne yàlla def na ci jàmm ba nga xam ne état civil bi ñoom sax soxlawuñu ko état civil bi kenn jëlu fa dara parce que bunte bi mënuñu ko woon dajji donc actuellement ñun def nañu les constats d'huissier on va faire déposer une plainte contre X en même temps également on va faire un rapport pour l'administration centrale